internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan yëpp yu DKR 221 di nuyu jàngalekat yi bokk ci Cusems authentique yëpp di nuyu képp kuy jàngalekat di ñaan rek comme ni ma ko doon ñaane comme man samay wax lébu ma ci fayu ma ci bor ñu teg ko ci dëgg rek bu ko defee ñu wax ci sunu aqulaay taala lépp lu ci jub ñu xam ni yàlla subhaanahu wa taala moo nu jàppale lépp lu ci dëngit ñu jàpp ne ay nit rek lañ matuñu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di yaakaar ni liñ fiy wax dina amal njariñ ñu nuy seetaan d'accord daam gis nañu tey syndicat yu bëri ay syndicat sax yoo xam ne dañoo lancé mot d'ordre de lu tax yéen bokku leen ci wala dafa am ñàkk déggoo seen diggante lan moo waral loolu jërëjëf euh, effectivement tey am na ñaari syndicat yoo xam dañoo lancé plan d'action ñu tudd kenn ki ki SAMS ki ci des euh, tudd SAEMS Euh, naam lancé woon nañ benn plan d'action ñoom ci semaine bi nu génn te benn ko lancé man mii euh, ak sama directoire bi nga xam si maa leen di jiite danoo defar suñu communiqué wax ne ànd nañ ci grève bi donc comme premier plan d'action la woon jotuñ cee waxtaan te ñoom ñoo ko lancé pour rafetal diggante yi ñu ne ñun d'accord nañ ci plan d'action bi moo doon le plan d'action du 8 et du 9 décembre bi loolu amee ñu teg ca nag ni leen kon comme def ngeen plan d'action ñun ñun waa Cusems authentique ñu fekk si leen ci seen plan d'action na ngeen fexe ba ngeen woote nag bu bii plan d'action jeexee bala ñoo teg beneen pour ñu waxtaane ko déggoo ci que jàngalekat yi dañoo wax ne ñun nañu ànd parce que ànd moo gën ci ñun parce que mbooloo mooy doole bi loolu amee ñun ñuy xaar kon ñu wooñu ci loolu malheureusement ñu topp jàgg rek gis Cusems ak SAEMS daal di génne benn plan d'action ni ñoom ñaar ñoom ànd nañ pour def seenub grève alors que jàngalekat ci école yëpp dañ ni képp kuy kuréelu jàngalekat nañ la woo na jàngalekat yëpp ànd def wenn say comme ni ko secteur transport bi defee comme ni ko yeneen secteur trans euh, yu dul transport bi defee yoo xam ne xam naa leen ñi ngi waxtaan seen biir bu ko defee bu ñu tegandoo euh, benn plan d'action bu dëgër ci la ñuy gën a gaaw a amee ndam waaw loolu moo tax ñoom bi ñu defee loolu ma jàpp ne kon ñii grève bu tappale la ñuy def ndaxte wax dëgg yàlla bu fekkente ne yow am ndam rek nga bëgg jàngalekat yi bokk ci ay syndicat yu bokkul nga bëgg ni yow ñaari syndicat kese ñoom ñooy dem grève ñi ci des ñoom boolewuma leen ci mooy da ngaa bëgg ñu féewaloo mooy ñeneen ñi tam nañ génne seen plan d'action bu ko defee pëccaxoo bi commencé ñee génne ñee génne ku ne génne man leen man d'accorduma ci loolu aujourd'hui am na ñaari plan d'action yuy daw CESEMS ak SAEMS joxe nañ seen plan d'action mais syndicat bu tudd SADEF aussi joxe na plan d'action man Dame Mbodj ci CESEMS authentique su ma génnee sama ñett Pape Mamadou Kane si del si génne plan d' muy ñeent poccoxoo ba day daal di commencé ñu ne jàngalekat yi déggoowuñ bu ko defee état bi kontaan moo tax man d'accord ma ci loolu moo tax ma ne jàngalekat yi bu leen nangu loolu benn syndicat xam si dañ day day féewale jàngalekat yi képp xam nangul ñun ñëpp ñu àndandoo ci benn plan d' pour ñu am doole bu kenn suivre plan d' moo tax man samay militant le CUSEMS authentique je le redis man du génne plan d' pour di wane ne danoo féewaloo mais yéen it képp ku génne plan d' action bëgg a féewale jàngalekat yi bu leen ko nangu bu leen suivre plan d' action maintenant nag ñun ñëpp ku ci nekk na wax moroomam dëgg ne ko lii ngeen def day yàq ñun bu ñu boolee suñu doole ci la ñu Macky Sall di ragale ci la ñu nguur gi di woowe waaye su fekkente ne dañoo féewaloo ku ci nekk yore sa plan d' loolu baaxul loolu moo tax ñun àndum ci. mais ñoom amuñu ñu farak mais ñoom dañoo jege nguur gi. loolu moo waral loolu parce que bu fekkente ne yow. dangaa bëgg kay ñu teg pression nguur gi pour suñu jafe-jafe yii nu am ñun jàngalekat yi mooy suñuy lenteur administrative ci suñuy acte administratif yi ñu am ay acte de validation acte d' intégration acte de reclassement ak acte yu mel ni yeneen acte yi ci am yëpp ba ci radiation bi yëpp dafa am jeexit yeexital mm-hmm. ba noppi ñuy dagg suñuy xaalis buñ fekkee ne acte bi génn na bu ñu lay fay sa rappel ñu dagg ko def koy impôt ba noppi li nga moom leen diggé woon ci formation mooy ñu former jàngalekat yi defuñu ko ba heure bii ba jàngalekat sax def nañ fa grève de la faim pour la mise en position de stage waaw léegi nag ñun ba noppi poñ bi nga moom la état bi gën a ragal mooy poñ bi nga xam ne moo concerné la révision de salaires mooy le système de rémunération maanaam ni ñuy fay liggéeykatu nguur gi ñu tiri ko jaarale ko yoon ku ci nekk li ci sa àq ak sa ñu jox la ko looloo boobaak léegi ñi ngi xaar ñoom nguur gi ñu woonu depuis décembre 2015 mi ngi ci table président Macky waa jafe-jafe yi gëm nga ne ñaari syndicat kese mën nañ koo régler te ñaari syndicat yooyu bokk ci ab groupe bu tuddee seen bopp G7 mm-hmm. même ñoom bi ñuy nekk sept syndicat grève nañ ci état bi faalewu leen kon tey bu ñaar ci ñoom nekkee di grève est-ce que état dina leen faale ñu euh, ci année yëpp mooy G7 G20 di grève ku ci nekk di grève duñu ànd état bi divisé ñu ñoom tamit ñenn ci ñoom dem ànd ak état bi parce que ñoom waa G7 lii seen jafe-jafe man xam naa ko dañ leen danoo defoon élection de représentativité 2017 ñu fal sept syndicats yoo xam ni même ce que résultat yi c'est pas des résultats définitifs mm-hmm. état bi ñoom lay waxal. kon ñuy porter la parole des enseignants pendant cinq ans. waa ñu ne ba élection yi ñu war yeesalaate mandat bi war a am en avril deux mille vingt deux mooy ñeenti weer ci des ñu toog jàgg rek di am am lu euh, doole daa taxaw ne léegi ñoom tey tey tey daañu régler problème jàngalekat yëpp yéen mënu woon a régler ci juróomi at yi mais soxna si ñii kon mën a kon nag ñun leen jàpp mooy li kenn ci ñaar ñii di grève waxoon parce que kenn ci ñaar ñii di grève wax bi kenn ci moom njëkkee lancé plan d'action muy SAEMS bi kisam sa lancé plan d'action secrétaire général bu SAEMS dafa génnee benn audio wax ne CUSEMS li tax mu lancé plan d'action du lenn du dul waajal élection yi bëgg ko ko voteel donc nga tax muy def plan d'action bi waaye régler problème mu jàngalekat yi tax koo jóg waaye tey pourtant moom la dem àndal ñuy lancer plan d'action pour diviser jàngalekat yi. ñun nag duñ nangu ci ku duñ nangu ku fi diviser jàngalekat yi kon leen jàpp mooy ñoom danoo nekk ñoom waa G7 ci participation responsable pendant cinq ans maanaam lan mooy participation responsable mooy nekk nekk di negg neggal nguur gi nguur gi di la jox ay avantages parce que ñun am na ñenn ñun xam ci ñoom ñoo xam ne am nañ ay post yu ñu leen jox ci ministère ñoom ñii di ñaar ñii di grève tey buñ ko weddee ma joxe ay tur. li may wax ni kenn ñëw koo weddi ku ko ci weddi ma joxe ay tur ñoom ñii di grève tey am na ci seeni bureau ñoo xam ne da leen a jox ay post ci ministère éducation nationale wala ministère la fonction publique yow état sax amul ñu nekk di politique. waaw dégg nga looloo gën a grave politique déggoo la ma la maanaam dem ñu jox la ay poste ci turu syndicat bi maanaam jàngalekat yi la fal ok moo gën a grave léegi nag am ministre mën ngaa gëm ne da nga dem nekk ci wetu bureau mu jox la fa poste ngay ngay syndicat ba nga taxaw di ko xeex loolu gëm nga ko yow bu dama ni jàngalekat yi bu ñu nangoo ñu nax leen ñu ñàkk fayda lii dëgg mooy grève bii li ko lal du pour defar njàng bi li ko lal du pour régler problème mu jàngalekat yi li ko lal ay tappale la moo tax ñun nag Cusems authentique duñ bokk ci tappale xam lañ ko nguuru président Macky Sall dañuy jaay doole pour ñu mën a xeex moom dañuy boolee doole ci jàngalekat yëpp la ñuy àndandoo teg benn plan d'action bu dëgër woon Macky Sall ne ko jaay doole bi mu ñuy def ak di salfaañe suñu ak ak suñu yelleef dafa war a dakk waaye di bëgg a féewale jàngalekat yi tax ñaari syndicat ne lay jëpp génn seenu plan d'action di tappale ko kenn war ko fee nangu moo tax képp ku xam lan moo nekk derrière da nga ko war a dénoncer ñu leen arrêté leen diviser jàngalekat ñu boolee doole ji jàmmarloog nguuru président Macky Sall bu ko defee lii nga xam ne moo na mett ñun jàngalekat yi ñu mën cee wut ay saafara d'accord Dame Mbodj dañuy desandi ba tey ci njàng mi ak njàngale mi gis nañ ni jamono ci fii ci université maanaam université yi nekk fii yëpp ci biir Sénégal gis nañu ni étudiants yi dañoo génn di jàmmaarloog takk der yi ndax lan Fatou Badara Ndiaye mi nga xam ne moo nekk étudiant ca université mbay te ñu naan dafa am daal lu mu lekk ca restaurant ba ba am fa intoxication alimentaire yow loolu ban jàngat nga ci am. jàngat ma ci def d'abord mooy marsawu wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen doom. marsawu également étudiants yi nga xam ne si ñoo nekk ca Bambey université ba noppi marsawu seen moroomu étudiants yi leen di jàpp jàppale ci université yëpp li ma ciy wax nag mooy étudiants yi li laaj lu xel mën a nangu la seenum naataangoo lan jox mu lekk ñu am intoxication alimentaire seen biir yi di daw ñu jëlee ci ay feebar ñenn ñu ci bëri ñu ngi ciy jafe-jafe ba léegi étudiants yi am ci ku ñàkk bakkan étudiants yi li ñu wax mooy benn nañ génne autopsie bi mu leer ñu xam moom li ko rey lan la bu ko ki ci laale ak ñi ci laale autorité ci laale yëpp ñu teg leen yoon yoon def liggéeyam mais jàpp naa ne lii kay càkkutéef bu xel mën a nangu la càkkutéefu étudiants yi mooy na yëf yi jaar yoon ñu leeral autopsie bi. mais dafa mel ne autopsie génn na waaye autopsie boobu ñoom gëmuñu ko. voilà mais autopsie bi ñoom nee nañ nañ nañ def contre expertise autopsie bi doyu leen noo ñoom. am nañ ci droit parce que yàgg naa am ci dëkk bi bu ñu génnee benn autopsie ku ci d'accord am nga droit génne ni nañ génne beneen autopsie. beneen bi mooy ñu ni jàngale euh, xa xa euh, étudiants yi am ñoo ci am jafe jafe-jafe nga toog ca seen i kër euh, université bi nangu koo jël en charge état bi nangu ko jël en charge kooku tam wax nañ dëgg étudiants yi bu ñu ca jëlee feebar toog ñu leen di bindali ordonnance ak di leen ñenn ñi peut-être war a def ay soins yoo xam ne dafay coûter xaalis bu bari mais étudiants yi amuñu ko. kon état bi nga xam si moom moo yóbbu liggéeykat ya fa nekkoon ba def lii maanaam ak autorité ya fa nekk nga xam ñoom lan jox alalu réew mi pour ñu jox étudiants yi fu nu dëkk ak fu nu lekkee ñu dem ba lii am ca ñooñu dañoo war a jël seen responsabilité jël en charge étudiants yi kon man li ma jàpp foofu mooy pëccaxoo gi am ci université yi moo war a arrêté te nguurug Macky Sall xam nga lu ko yàq mooy ñi niy dénk duñ leen dénk ci xam-xam dañ leen di dénk ndax danoo jege nguur gi loolu tax université yi mën naa amee jafe c'est normal mu amee jafe-jafe parce que université yi ñoom buñ buñ koy joxe joxuñu ko ñoo xam ne dañ leen koo jox parce que danoo xarañ dañ leen koy jox parce que danoo jege Macky Sall wala dañuy politiqueal Macky Sall loolu moo tax ñu leen di jox ay poste léegi nag lii li muy wane mooy dañoo war a toogaat waxante dëgg te bàyyi tappale bi te bàyyi politiser université loolu moo tax étudiants yi li muy wax nii tegu na ci dëgg man jàpp naa ne nguur gi moo war a arrêté ba noppi situer les responsabilités jël daan yi war a jël teg ko ci kaw euh, kilifa yi nga xam ñoo nekk ca université ba te indi njombe lii nga xam moo fa am parce que dundu doomu aadama du caaxaan surtout sunu tout tànk yi nga xam dañ leen war a tàggat pour ëllëg ñu war a yor réew mi kon nag man jàpp naa ni étudiants yi li wax ci seen droit la nekk maintenant nag li ma ci mënta accepté mooy ñu jël ay policiers di leen yóbbu ci biir université yi ñuy dóor étudiants yi ko kenn ko fi a dakk mais moom fu ñu demal mais gis nañu ni sax étudiants yu si bëri après dañ leen di yóbbu ay conseil de discipline dàq leen. mais effectivement tey jamono nguuru Sall lañ ko gën a gis il y a quelques années en dafa nekk fi sax effectivement man mii di wax ak yow njiitu éti euh, étudiant laa woon. ba may nekk université Gaston Berger booba dama bokkoon ci ñiy jiite université bi étudiants ya fa nekkoon tax te te te nekkoon fa ak man xam nañ ne man ci njiit yi laa bokkoon. booba lu ne def nañ ko waaye benn yoon daaw ñu fa dàq kenn ñun ñi dem nañ fa sax ba tëj fa ab recteur séquestré ab recteur sax def nañ ko fa te kenn dàquñu léegi nag li xew fii étudiant c'est normal mu contesté ñun ñaata yoon lañ dem ah taxaw xeex manifester lakk ay oto ñun ñaata yoon lañ def loolu en tant que étudiant ñoo ñu taxaw à Dakar fii dajaloo fi ñun étudiant université bu Ndar wala bu Dakar dajaloo fii xeex ba lakk ay oto te te mosu ñu fee dàq étudiant mais nguuru Macky Sall gi mu nekk daa ëpp réew moo mën a dem étudiant day contesté loolu mooy yàgg am ñun su sunu jamono jamono à l'université Gaston Berger mais taxaw nañ sax ab oto ab oto compagnie sucrière sénégalais taxaw euh, étudiants yi ko fa te mujjul parce que dañoo jàpp ni coono boobu ci dañoo toog ñu waxtaan état bi xam ni lii bu ko gënee euh, taal euh, bu ci gën gënee xëpp essence coow li day gën a bëri nguuru Abdou Diouf boobu da koo fay fay coow li après ñu bàyyi étudiants ñu dem jàngi mais bu doon tey nguuru Macky Sall mais day jéem a dàq étudiants yi dem instrumentaliser l' assemblée de l' université pour ñu dàq étudiants yi ñun dàq defuñu dara liñ def du lu extrêmement grave ay xeex la ay jàppante seen biir et cetera wala ñu dem euh, taxaw am taxawaay boo xam neexule mais même président de la république dem dugg na université ñun am Diouf ñëw na fa ñu ne ko doo dugg ci université bi daan na xam te daan na xam teg ñun ba dugg ci université bi ba mu ñëwee ne mais noonu la étudiant boo fi mos a gis Macky Sall bi muy nekk étudiant naam daawul jiite parce que moom bi muy nekk étudiant moom daawul jiite mais euh, dafay nekkoon ñu koy man ña koy jiite la ñuy def mu ànd ca mais génération gis ci étudiant mais def nañ fi loo xam ni dañ koy tere parce que étudiant moo ànd ak contesté mais nag le fait que ñu jël police chaque jour ñu jàkkaarloog étudiants yi ci buntu université yi foo ci dem fourgonnette de policiers yi ñu ngi taxaw université boo ci dem nag fourgonnette de policiers yi ñu ngi mais ku bëgg a jàmm du def loolu donc les franchises universitaires sont violées tous les jours par le régime du président Macky lii dafa war a dakk képp ku bëgg a jàmm da wax dëgg Macky moo arrêté jaay dooleen bii la war a arrêté étudiants yi waruñu leen chaque jour leen wan ni ñun policiers ñoo ngi nii Macky Sall ñu fi yónnee pare nañ pour xeex ak yéen même bu amee policiers yi taxaw fa pourquoi pourquoi ñuy taxaw di def jaay doole ak bu ñu étudiants loolu man jàpp naa ne jaay doole la te daa war a dakk kon képp ku bëgg euh, jàmm ci dëkk bi da ngay wax Macky Sall mu arrêté jaay dooleem bi parce que jaay doole baaxul mm. mënuñu laa jox sunu al alal jox la sunu man-man jox la sunu sañ-sañ nga yore say décret yore xaalis bi du xëppaate ak di xëppaate ku ànd ak yow nga jox ko ci paacoo bi képp ku àndool yow nga duma ko jël police bi ak gendarmerie bi duma ko kooku Macky Sall rek moo ko fi defagun comme président de la république même bu fekkee am na président yi ko fa doon def niñ ko doon defee ak ni ko Macky sal di defee bokkul parce que Macky Sall jaay doole à tous les niveaux dañ koy sentir kon nag loolu dafa war a